jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen di wadal leen ak jàmm ci seeni actualité du jour ñu dooree kook nag coowal trafic faux passeport bi ak kii di kilifa moom Landing Missane Seck nag ñu gën koo xam ci turu kilifa bu yaanaamaar fas yéene nañ ko defeere ni ki tey ci jeudi bi foofee ca parquet ba ginnaaw bi ñu ko placé en garde à vue foofee ca division investigation criminelle jëmale ci trafic visa ak passeport diplomatique ginnaaw benn vidéo buñ gisoon benn xaritam di ko filmer ñu nekk ci oto mu jox ko xaalis te waroon ko wutal ay visa ak i passeport diplomatique pour doomam ak ab jabaram moom kilifa nag ginnaaw bu ñu defee confrontation bi ak xaritam boobee di Thierno li nga xamante ne ñu ngi ko koy tuumaal daal dina koy nangu waaye nag mi ngi leeral ni ci biir 4,5 millions yooyu 2 millions yi moom ab commission woom la woon ngir mu gaaw rek utal yooyu les papiers xaritam bi la ca des nag nee na jënd ab oto moom moo ko taxoon a jóg boobule vidéo sax nag itam ñu ngi wax ni benn célébrité moom moo ko fiite eh, ci réseaux sociaux yi ba tey ci coowal faux passeport yooyee nag député yi nga xamante ni tudd nañ leen foofee ci assemblée eh, bokk na ci Mamadou Sall ak Demba Biaye ñoom nag ni ba tey eh, ngi tudd seen tur te kii di El Hadj Condé nga xamante ni sax moom mooy réseau boobule rek trafic nekkoon ca bopp ba moom El Hadj Condé moo fësal seen i ay tur député yooyee di wax ni doon liggéeyandoo ak ñoom xam na ni sax doon na leen recevoir ci seen i ay bureau ñoom Mamadou Sall ak Demba Biaye dem na itam bay wax foo certificat de mariage yu doon defal guinéen yi di wax ni rek ay jabaru député yooyu lañ su ko defee ñu mën leen a defal ay passeport diplomatique ñoom itam ñi doon versé lu toll ci 4,5 millions si ay koppar koppar jamono ji nag yooyu la député ñoom jot nañ leen déglu ci enquête bi rax si dolli kii di du Sall itam président assemblée nationale Moustapha Niass daal na koy déglu moom ak Demba Biaye kenn ki nag di wuyoo ci turu Demba Biaye nee na xam na Condé bu baax a baax itam doon na ñëw ci seen ay apartement nee na sax yor na seen i caabi appartement ba tax na nag li jot mooy dañoo jël seen i ay document daal di koy rek falsifié yori seen ay copie passeport ak ci mbir mi jëm ci réseau trafic faux passeport enquête bi nag ba tey mi ngi woy jëmale ci coowal faux passeport boobule kii di Kabirou Mbodj nekk jiital groupe bi ñuy wax Wari fi mu ne nii nag daal nañ koy daan juróom benn weeru kaso amande ko itam 2 milliards yu mu war a fay société bii di tab tab Send ñoom ñaan ñëpp di liggéey nag ci wàllum xaalis moom Kabirou Mbodj ci la xam xamle ci ay xibaar ginnaaw benn contrat bu mu signé woon ak société boobee di tab tab Send te mu lëkkaloo ceeg société bi muy dirigé di Wari dañoo rek waxoon xaalis boo xamante ne ni dañu ko war a verser eh, ci ay fonds moom mi nag di Kabirou Mbodj ak société boobu di Wari eh, respecté wuñu terme contrat yi waral ñii di waa Tap Tap Send daal di woon porte plainte jamono ji nag boobu le procès ñoom ñoo ko mujjee gagné ndax Kabirou Mbodj ci mi jiital Wari ñu ngi ko daan juróom benn weeri kaso eh, teg ci ñaari milliards yoo xamante ne ni daf ko war a fay amende xale bu góor bi di wuyoo ci turu Pape Mouridi Mbaye moom jamono ji di waajuram moom la ko waral du leneen lu dul boppam bu mu jàpp daal di koy tent papa ji ni ko dindi ko moom Pape Mouridi ne mukk du ca dal moom la nag mi ngi am fukki at ak juróom-ñett nekk élève en classe de première ci benn école foofee ca Dakar. niki démb nag lañ leen doon àtte foofee ca tribunal grande instance bu dakaar jëmale ci violence à ascendant yóbbee sax nag baayam ji incapacité temporaire de travail bu cinq jours. moom mi la nag ñuy xam ne sax si ay xibaar yàgg naa di jàppanteeg ki nga xamante ne moom mooy papam waaye 31 août bi weesu ginnaaw bi papam joojee di jóge ci bërëb liggéeyukaayam di wàcc moom Babacar mbay ci la seetlu ni nag doomam ji dafa tent ab boppam loolee neexu ko benn yoon nee na ci la ko ko waxee mu daal di koy dindi ca saas ya loolee nag xale bu góor bi dafa lank ne du ca dal du ko dindi tey te du ko dindi ëllëg laata moo songante ak moom ba di koy dóor ab kurfañ ko yóbbee ko ab temporaire de travail moom Babacar Mbaye nag di papay xale bi mi ngi dellu si ci yëf yi ni mu demee bi mu taxawee ci kanamu baar bi nee na doomam daf koo saaga ba mu tooy xepp ci kanamu dëkkandoom yëpp loolee nag nee du ko bàyyi benn yoon mu jàll loolee waral mu ni daf koy corriger daal di koy rek yóbbu ci kanamu yoon moom Pape di mbay nag li nga xamante ni ñu ko koy tuumaal daf ko weddi ba mu set moom version bi mu joxe mooy dafa génnoon kër ga depuis mois de mars daal di dem foofee taxawtuñu dañoo nekk sax di waaje divorcé te moom itam booba tey nag dafay jàppanteek ki nga xamante ni moom mooy euh, papaam nee na euh, ci bis ba nag kii di papaam moo ko bëggoon a dóor ak benn euh, parasol waaye moom dafa doon rek moytandiku yooyu la dóor nee na laalu ko benn yoon dafa moytu rek dóor yi mu ko doon dóor ndax nee na bi mu ko ne mu dindi tent bi mu def ci boppam bi bis boobu da doon taw ci la ko tontoo ni ko xaaral ba taw bi daal di sebet ma door a dem dindi ko moom Pape Mouride Mbaye mu ngi ci rax si papaam daf ko menacé ni ko euh, daf koy rey bis boo foo xamante ne rek euh, déggalu ko xamle na ni itam bu ko bëggoon a dóor rek xam na neneen lu mu koy gaañee waaye kon du ko dóor ci conc bam ciy gaañu nee na sax yaayam moom nga xamante ni nag fekke woon na yëf yi moom moom mujjee maîtriser papaam moom Pape Moudiry nag di défendre boppam ni xamle ni amul benn fréquentation bu bon comme ni ko papaam di gëmloo nit ñi kii di Pape Moudiry Mbaye nag ay avocat nga xamante ni ñoom ku ñoo koy layool lañu rek jot a fësal mooy xale bi divorce papaam ak yaayam da ko ci lu bëree bëri jamono ji nag ni ëllëg sax la ñu yóbbu délibéré ñoom ñoo ñu seenub histoire fas yéene leen a at foofee ca diwaanu Grand Yoff nag ñetti soxna ñoom lañ fa jàpp teg leen loxo ñoom ñooñee nag lañ leen jàppeetu leen lu dul alcool bu ñu doon jaay maanaam sàngara ñoom ni nag di Anna Mané Marie Angélique Mané ak Ernestine Gomine ñoom ñett ñëpp dañ leen condamné ginnaaw bu ñu jàkkaarloowee ak juge bu tribunal grande instance bu Dakar niki démb ñu ngi leen toppee nag vente d'alcool sans autorisation fi mu ne nii daal leen leen daan ñetti weer yoo xamante ni nii euh, fukki bés moom lañ ci tëdd euh, ñoom ñi leen nag gannaaw ba ñu jàkkaarloog euh, tribunal ba li nga xamante ni ñu ngi leen koy toppee daal di nañ koy nangu ñoom itam nag ay mag lañ te ku ci nekk am nga njaboot ku ci nekk daanaka rek am nga juróomi doom kii di Anna Mané nag moom am na 40 ans mu ngi wax ni nag alcool bi ñuy wax sëng moom la doon jaay foofee ca këram nekk foofee ca Grand Yoff quartier Arafat boobule alcool nag dafay mandiloo à moitié ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay client am nee na nag ab bouteille bu 20 litres moom ci la tàmbalee litre bu nekk nag ñu ngi koy jaayee 500 te nee na boobule commerce dafa doxoon bu baax a baax moo tax ginnaaw mu defee ak opération chirurgicale mu daadee nag ni dugg ci boobule commerce ngir am luñ ciy sukkandikoo di ci nag toppatoo ak njabootam seeni avocat nag balee ni layool moom la ma xamle mooy ñii ay mag lañ itam ay mère de famille lañ te xamuñu woon ni rek dañoo war a laaj autorisation ngir daadee jaay boobu alcool fi mu ne nii nag juge bi ginnaaw bu leen dégloo dalee leen a déclaré coupable laata leen a condamné ñetti weeri kaso yoo xamante ni fukk ya dañ koy tëdd. foofee ca cité Soprim benn apprenti chauffeur nag boo xamante ni daf doon sàcc moom lañ fa jàpp moom mi nag di wuyoo ci turu eBay gannaaw métier apprenti chauffeur ba muy def dafay nag wër di agressé nit ñi ci foofu nga xamante ni moom mooy wetu oto yi bokk na ci yooyu la oto transport en commun yi lu ci mel ni njaganjaay yi nga xamante ni ci lay liggéey ci noonee nag ginnaaw benn soxna bi mu ko yabee ba mu wàcc ci car rapide bi foofee ca diwaanu cité Soprim moom daf ko topp rek laata moo xëcc ab pérugam waaye xamante ni nii rek ñoom itam ñoo yëgandoo woon ca kaar ba ñu ngi doon gis lépp li nga xamante ni moom Ibe mi ngi ko doon def si la ñu alerté voisinage bi ak passant yi doon romb ñoom ñoo ñëw wàllu si ki nga xamante ne moom mooy soxna si nekkoon di yuuxu daal di nekk fekk ibee dóor ko door yu métti laata ñëw woo police bu Parcelles Assainies ñu daal di ñëw rek daal di koy yàpp yóbbu kii di xabilaam nekk nag benn sénégalais bu nekk foofee ca diwaanu Italie di yëngu ci réseau social bi ñuy wax TikTok jamono ji nemmeeku na bu baax a baax gannaaw 110 millions de followers yi mu am moom xabilaam ñu ràññee ko ci vidéo yi muy def vidéo comique euh, te sax mi ko tàmbalee def ginnaaw rek mbasum covid bi bi mu lëmbee euh, ci atum 2019 jàpp 2020 moom xabilaam nag ci la euh, toog di def yi la vidéo yaakaarul woon ne nag sax dina yegg si fii ndax jamono ji ñëpp koy suivre ci tiktok beeg vidéo yi muy def mu ci am xaalis bu bari rawatina nag àddina àddina yëpp di ko suivre moom Habilam mu nekk doomu Sénégal mbokk internet ci fi la ñu yem ak yéen ci seen actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf.